alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain amma baad eh, gannaaw sant yàlla subhanahu wa taala julli Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa question yi li ñu koy ubbee rek mooy li oustaz Omar Sall wax léegi eh, comme ni ko ñëpp xamee rek masjidul muxtaar dafa nekk benn masjid boo xam ni spécial la ndax vraiment dañ koy dañ koy dundal bu baax a baax si anam gépp nag moo tax sax comme ni mu ko waxee léegi comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp weeru koor gi diirub weeru koor bi dañ fi organiser ay euh, ay ay ay ndogu macha allah ba tax na kon loolu dafa laaj budget bu takku sax waaw bépp jaamu yàlla bu fi ñëw ci bis daal li nga fi mën ndogoo même fukki fan yu mujj yi sax dañu fi organiser ay xëdd ak yu demee noonu donc affaire sociale daal dañu siy yëngatu lu dañ siy yëngatu bu baax léegi am na euh, programme mu jàkk ji génn na maanaam conférence yi ñu war a amal si. weeru koor bi mu ngi nii xam naa après dañ leen ko jox beneen bi mooy ñu ngi woo mbokk yëpp comme ni ko Oustaz Oumar waxee kenn ku nekk dugal si loxom ñi jekk tey incha allah ñu ngi leen di xaar ñu weeru koor bi incha allah ñu ngi koy wax mbokk yëpp képp koo xam ni euh, am na soo xamee euh, maanaam képp koo xam koo xam ni si foo ko contacter dina si mën jàpp aussi ñu ngi lay ñu ngi lay woo si loolu beneen bi mooy am na benn confrance bu ñu fi war a amal samedi le 4 samedi 4 mai à partir de 17h fii si jàkk ji docteur Sidi Yaxya Ndiaye moom moo koy def euh, thème bi sax sax si koor la aju mooy naka la ñuy waajalee weeru koor incha allah. xam naa kon loolu tam ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax. donc kii yaa ngi nii xam naa samedi à 17h. incha allah donc ñu ngi nii xam naa mbokk yi nañ leen ko distribuer. kon lool la amul amoon li ñuy jàllale comme information léegi Oustaz Oumar xam naa question yi ñu laal si ñett wala ñeent rek incha allah rabbi waaw. Euh, tey léegi ci daal li mu doon laajte daal mooy wàllu yéene dafa bëggoon nga leeral ko ko yéene ndax dañ koy tudd ci làmmiñ walla dañ koy fas ci xol. déedéet xam nga yéene mbirum xol la. yéene mbirum xol la xam nga ci sa biir xol mun nga wax ne yàlla day yéene naa woor weeru koor wi yéene naa ko boo ko boo ko waxee ci talafus tamit amul problème waaye fas ko ci sa xol rek moom moo gën incha allah